Thank you. toujours dans votre acte du jour de ce 18 juillet 2024 ginnaaw ki nga xamante ni Adama Fall moo def analyse am jëmale ko ci arrestation Bah Diakhaté kii di Madiambal Diagne di président groupe Avenir Communication bañ ko invité foofa ca Sen TV bu mu jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy Ndeye Fatou Ndiaye am na ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko li nga xamante ni tey arrestation Bah Diakhaté nañ déglu ñu Madiambal dellu si waat nekk ci lien wu détention la situation de Bah Diakhaté est-ce que mën nga ci revenir c'est une situation dramatique parce que baa Diakhaté bi ñu ko fi téye. lu ñu ko téye outrage au premier ministre loolu la ko fi jàppee woon ah. diffusion de fausses nouvelles. non non diffusion de fausses nouvelles lañu dana di jaay nañu terrain këyit baa ngi nii kon kooku ñëpp gis nañu diw jaay na terrain diw la ko jaay këyit baa ngi nii kenn weddiwu ko. Hmm. bañ koy arrêté dañ ni outrage au premier ministre ñu dem tribunal avant ñu koy àtte ñëpp ni leen outrage au premier ministre ci code pénal sénégalais. terewul téye nañ ko pendant trois mois condamné nañ ko. def na appel xëy na dañ gisat dossier boobu luñ koy wax. mais li nga xam ne laa jàpp sa seetlu ko. mooy bi ñu dafa am ñoo xam ne lu mat am na ay xew-xew yu fi amoon lu Bah waxoon ay weer yi weer mosuñu koo porter plainte. toog ba tey Bah Diakhaté nekk ci biir kaso bi ñuy déposer ay plaintes yu bees. dem ba fekk peenu Bah Diakhaté bi ñu bëgg a jeex ñu dàbbale ay plaintes yu bees naan dañ koy enquête. dama japp ni kon lolu ay pexe la pour téye ba Diakhaté bir kasso bi ma japp ni nak lolu li tubaab di wax lâcheté moy ngay jaf jàmmaanroog nit ki bu teud ci souf nga fekk ko fa fecc souf di ko ne di acharné wu ci mom man pour man rafetul ba Diakhaté ni koy porter plainte tay buñ ko defone il y a 2 mois il y a 3 mois il y a 6 mois duma len ko bañal ndax sen droit la mais newuma nak waruñu ko def de ku taaka de de euh, infraction prescription à mhm. mais est-ce que nous avons confiance peut-être que les gens Japonais il n'a jamais été inquiété que vous également cause. est-ce que je demande. non non mais enfin parce que cette question là pour man dafa il hmm. parce que hmm. dafa dafa sénégalais faut fi neck hmm. di porter plainte sénégalais ba fi jamonoy Macky Sall kon ñooñu kenn nelawul noonu doo porte pourquoi yow yow da ngay jël sa responsabilité am nit tooñ na la demal ci yoon bu yoon defee liggéeyam xayrul bu deful liggéeyam nga xam ne yow def nga la la war mais yow nga ni miix nit tooñ la nga mën koo muñ pendant juróomi weer juróom-benni weer toog ba nit ki nekk ci kaso bi nga soog a génn naan damay porter plainte man day wax dëgg yàlla jàpp naa ne ah ku am fulla ak fayda te respecté sa bopp nawloo sa bopp doo defee noonu. par rapport à la justice. Euh, kon yakarna ni ñoo déggandoo kàddu yi nga xamanteni ki di ma jambal yëkëti ko jëmlé ko ci li nga xamanteni moy arrestation ba jaxaté suñu ñu ci fond ba forme ba ak contexte bi japp nañu lepp jaarul yoon bah offense au premier ministre luñ ñu won ja bah jaxaté moy diffusion de fausses nouvelles té ñaar yëpp ci analyse u Madiambal Diagne gisuñu ci benn yoon bo xamanteni amna kon ba jaxaté lan lañ ko jaay dañ ko jaay doolé su dé offense au premier ministre la gisuñu ko fenn ci suñu code pénal ginnaaw nag président jël ay prérogatives yokkal ko kii nga xamante ni mooy premier ministre comme prérogative yoo xamante ni tey ku ko laaloon président de la république article quatre-vingt day dal sa kaw nu ñu ko doon tuddee offense au chef d'état loolu amaana amagul ci kàddu la yam mais kenn ba léegi matérialisé ko binduñu ko xaatimuñu ko promulgué wuñu ko. yóbbu yóbbuwuñu ko aussi si journal officiel ba sénégalais yi xam ko ba ca topp mooy diffusion de fausses nouvelles ah kii di président kat dafa jaay suuf kan la ko jaay mooy ki nga xam ne mooy ministre de l' économie et des finances muy kan Cheikh Diba mu yëkkati këyit bu ko wone te ñëpp yëkkati ko woon ko bërki démb Moustapha Diakhaté wax na ko ba tey ji kenn toppee ko diffusion de fausses nouvelles keneen ak keneen mi ngi koy wax papier bi mi ngi ci réseaux sociaux yi ci biir parcelle bi xam nañu fu mu nekk mètre carré bi xam nañu fu mu nekk ñi ne loolu diffusion de fausses nouvelles la kon nañ jàpp ne kii di Bah Diakhaté ak kii di imaam Ndao dañ leen jaay doole uniquement pour naxasal leen maanaam régime dictatorial lañu dem nañu ba nga xamante ni Bah boole na li nga xamante ni mooy dignitéem tëdd peine bi nga xamante ni mooy trois mois kenn déggul Bah Diakhaté sa xët kenn déggul Bah Diakhaté ne dama feebar kenn déggul Bah ne dama am insuffisance rénale kenn déggul Bah ne dama am diabète kenn déggul Bah Diakhaté déclaré benn yoon grève de la faim té ñom ñu ñu andalon ñepp ko ci japp ñaari fan ñu ne grève de la faim grève de la faim dem na ba kenn ci ñom tay ji nommé nañ ko poste directeur lan la wax suma deful won grève de la faim bi duma ci genn kon Bah Diakhaté est un vrai soldat est un vrai patriote ki nga xamanteni mi ngi teud dignement li ji penam dem ba penam wara a jeex c'est inélégant ngay jël sa ben avocat bo xamanteni nga ne ko dugalaatal plainte di xol ñeneen pour ñu dugal plainte xol ni nga ko koy gën a enfoncer pour yagal ko ci kasso bi te li nga xamante ne ba mu koy wax yàgg na yéen ci leen bopp ñu voté leen loi d'amnistie bu tax tey ngeen doon président de la République ñu ne bépp fee boo xamante ne dafa lié woon ak ay manifestation politique fii ci réew mi ak ci bitim réew ay déclaration génn ci ay lépp am ci jàppale ni que loi d'amnistie bi effacé na lépp baal nañu lépp ba tax tey yéen ngeen génn ci kaso bi ba nekk président la République kon yaakaar naa ni tay ci loi ak ci contexte justice ñaaw na tay ñi gis ay plainte yo xamanteni ñu ngi koy duggal à quelques jours yo xamanteni ba jaxate Diakhaté war na terminer penam ni ko jambal jañ waxe nga jàpp ni diko ko dóor ba mu tëdd ci suuf wax deug yàlla nga war ka mën bay nga ne fala koy fekk gën ko ray te ba tey jii mi ngi bot ay loxom donc je crois que muy analyse bu am solo bo xamanteni ba jaxat ki kii di Madiambal Diagne yëkkati na ko ci li nga xamanteni moy arrestation ba Diakhaté waye nak intimidation doxalul rew dictature doxalul réew nit ki nag soo toogee di xeex dara ba yàlla nàkkal la ndaw yu topp la ba teg la ci bopp pouvoir ngallaawaay soo egsee yow fexeel pratique bu mel noonu waxuma la sax bu ko def mais bu ñu ko séen sax ci sa régime ba nit di ko xalaat donc je crois que nit dafa war a fàttaliku démb. donc lepp lu ñuy exiger rek mooy ñu libéré ba Diakhaté bàyyi liñ koy toppee liberté d'expression nag dafa am nit ku nekk waxal sa xalaat waxuñu kenn nga saaga waxuñu kenn nga diffamé waxuñu kenn nga def révélation ba amul ci source mais nit ki su xasee ba indi ay preuve am teg ko ngallaawaay bàyyil mu dem yoonam ndaxte yéen bi ngeen nekkee à l'opposition chaque jour ngeen wax ngeen ne am naa preuve preuve baa ngi nii sama téléphone preuve baa ngi nii ma téye ku ma woo défier naa ñëpp te ba tey jii mosuñu dégg benn preuve bu ñu teg et pourtant mënoon nañ leen top foofu te kenn donc je crois que muy une analyse pertinente pour xamante Je Madiambal Diagne def na ko ci lii nga arrestation à Diakhaté et nous exigeons la libération de Bah il est sénégalais, le peuple a besoin de lui. C'est un activiste, c'est un républicain. Il y a des activistes qui étaient plus violents que Badja Donc, des sagas et des sagas et Kilifodine. Et pourtant, bataille de Nigé d'Orsen Sorla. Sénégal a mon aïe moyen de mener traquer Indilen. D'arté que traquer Hassan Diouf d'États-Unis, par Sénégal. Qu'on traquer ben Akhenaton, voilà traquer ben Kézifo, voilà traquer ben Tonkara, voilà les États-Unis. Le yombon le chignon mais dans la liberté d'expression c'était dans la politique Bah a parlé dans le sens de la politique donc nous demandons free à Bah <laughs>